asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yu seen football tv nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen képp ko xamante ne da nga bés si chaîne bi lay aboneel cliquer si cloche boobu ngay gis vidéo bu ñëw nga mën ko seetaan bul fàttee tamit aimé ko tàmmal defee à que benn fois da ngeen ma koy demandé ma def ko en wolof tey ne dañuy ñëw wax si Abdou Diallo Abdou Diallo nag dafa def benn dafa def benn interview bu mag a mag ak journal bi gën a mag France sax mën nañ ne ci wàllu sport muy l'équipe wax lu bëri si équipe nationale wax si Paris Saint-Germain wax na si postam donc dañuy jël poñ yi gën a am solo rek yu xamante ne concerné na équipe nationale du Sénégal ak carrière am première question bu xamante ne posé nañ ko bokk na si yow bi nga choisir Sénégal premier jour yi ni mu demee si sélection bi Abdou Diallo di wax ne dafa sentir ne gars yi ñu ko doon xaar texte yi dafa naturel nekkul lu compliqué gars yi dañ ko accueillir ak jàmm donte moom ngi wax ne premier jour dafa toogoon noppi yi waaye xam na ne moom gars yi duñ ko bàyyi noonu waaye neen bi mu déggee hymne national du Sénégal li mu njëkk xalaat li mu njëkk a xalaat mooy bi mu nekkee xale papaam daan fete Sénégal bu gëñee ni muy yuuxee loolu la njëkk a xalaat après loolu mun a waaw man la quoi nekkatul caaxaan leneen lu xamante ne wax na ko mooy bisutage maanaam bi ñuy fecc noonu moom ak Fodé bala Touré ak Nampalys Mendy muy tooñaate sax di wax ne li ko gën a yàqal bokk na si xam na ne mënul fecc moo tax mu def ko exprès mujjee fecc nee na Fodé Ballo-Touré moom def fa dara xam nga ñu kenn xamul lu mu doon fecc waaye Papy moom moo leen tane maanaam Nampalys Mendy moo tax muy wax. ñu posé ko beneen question ñu ne ko yow joué nga si petite catégorie France yëpp teg si joueur bu Paris Saint-Germain li tax nga choisir Sénégal jaaxal ñu bëri loolu lu mu la def. mu ne moom mën na comprendre ñi nga xamante ne dañuy posé wu question boobu si xalaat ñu bëri moom français la bu ñu ma posé woon question bi avant dinaa leen wax ne man français laa sénégalais laa ñit ñi nag mën nañu xalaatee noonu affaire bi jaaxal leen mais moom français la sénégalais la nekkul lu bizarre lu naturel la. beneen question bu xamante ne posé nañ ko ñu ne ko yow est-ce que du da nga ragal concurrence bi nekk France moo tax choisir foofu mun na noonu du question ragal du question ambition. nekk na si position bu baax pour mën a ñëw France boo xoolee si mois yu mujj moo ngi gis bu baax a baax donte du tëtale tout le temps Paris saint waaye moo ngi gis moo ngi si benn niveau bu baax baax donc waroon mën a ñëw France waaye xolam na topp tànn Sénégal ñu laaj yow depuis kañ nga commencé xalaat tànn Sénégal wala France muy wax ne depuis 2019 bi ñu ko convoqué wala si espoir yi maanaam euro espoir si la ñëwee Sénégal fii vacance si la xamee ne moom sénégalais la. ci kaw loolu nag après waxtaan nag Aliou Cissé téléphone ñu posé ko beneen question ñu nekk que la moo gën a métti si tànn ñaari dëkk la moo si gën a métti mu ne moom il faut nga xalaat moom parce que tamit dëkk bi say origine la dëkk bi fa nga yoroo fa la la defalee sa formation donc tànn day difficile tout le temps waaye moom nekk na nit bu xamante ne dafa positif xam ne ne ñaari culture la am ñaari nationalité après loolu yëpp nag boo ko xoolee nag foog nga tànn waaye loolu taxul moom nekkul français maanaam lu mu nekk français wàññeekuwul xam na ne deux culture la am moom mooy Abdou Diallo ak jaar-jaaram bi ñu xam te loolu noonu jamono bi force la ci moom maanaam doole la wala muy wax ni muy wax ne sénégale la loolu kenn mënu ko dindi ci moom français la kenn mënu ko dindi ci moom nekk na benn cas boo xamante ne dafa exceptionnel teewul binational la dina difficile ñenn ñi duñu comprendre ñeneen dinañ comprendre journaliste bi bàyyi ko mu demee noonu posé waat benn question pourquoi Sénégal pourquoi nga tànn dëgg-dëgg Sénégal muy wax ne mën na déranger yenn joueurs yi waaye moom loolu droit am la identité la moom mooy tànn xolam la topp tànn beneen culture am mu nekk nag doole ci moom. beneen question boo xamante ne yitteel na sénégalais yi bu baax a baax ñu xam ko nag ndax bi muy defee fii interview ak fédération sénégalaise de football waxoon na ko mooy dañ ko posé question lan mooy say ambition ak Sénégal. muy wax ne boo xoolee sélection bi da nga xam ne am na matos maanaam am na yenn joueurs yi si loolu nag amul benn palmarès waral moom benn envie la am jox population bi li muy xaar bind histoire bu Sénégal gagné Coupe d'Afrique moom nag lii la wax si li xamante ne concerné na Sénégal don donte nag am na yeneen question yu xamante ne euh, côté Paris Saint-Germain lañ koy laaj temps de jeu ay ambition Ligue des yooyu yëpp wax na si mais ci gàttal rek wax na leen ne euh, tey jii buñ ko laajee yow sa saison noo ko gisee. muy wax ne moom nekkul joueur bi xamante ne day ñëw taxaw Paris Saint-Germain di réclamer dafa war titulaire ndax concurrence bi tàng na jër waaye aussi tamit dangay comprendre ne am na fi blessure li nu mel tax na à chaque fois du nekk à cent pour cent loolu nag jàpp na ne du excuse parce que moom mu ngi liggéey gëm na boppam muy wax ne du Messi du Ronaldo reetaan sax waaye gëm ni jafe-jafe si joueur moom foog nga nangu ko te jamono bi entraîneur bi fi nekk Pochettino moo ngi commencé jox confiance ci ay match yu mag quand moo ngi joué mu ngi am temps de jeu blessure yi bu ko bàyyul rek jàpp na ne mën na jeexalee saison bi si niveau bu baax baax. laaj nañ ko si benn post bu xamante ne xam naa ne intéressé na Sénégal yi bu baax a baax mooy poste latéral gauche donte moom agsi la foofu lañ ko formé muy wax ne nekk na poste bu xamante ne sentir na si boppam donte moom défenseur mais ci football amul xalaat lii xalaat la lee sa bëgg-bëgg fu ñu la teg da nga fa mën a jouer entraîneur bés bu ko fa tegee day jouer normalement hmm. joxe kéemtalaay kàttanam ba def ay performance wala sax possible jàpp nañ ne jamono bi dafay gën di progresser donc li mu wax mën nañ ne lii la wax ne aussi tam si Bayern ne wax ne match boobu doon match bu yombul concurrence bi nekk Paris Saint-Germain côté gauche bi tamit wax ne ne yombul wax na si lépp wax na si ay blessure am te moom bu fekkee jàpp nañu li gën a am solo si li mu def ci interview bi mooy bëgg na Sénégal am ni ambition gagné Coupe d'Afrique bëgg na tamit def ay prestation yu bu baax Paris Saint-Germain donc lii leen leen mën a wax si interview bu xamante ne Abdou Diallo def na ko ak l'équipe donc ci commentaire wax leen seen xaar ak seen gis-gis di leen jaajëfal di leen wax ba benn sur seen football TV.